waxoon wala Macky Sall kanam a ñaaw rek lu mu gàtt gàtt téye nañ leen benn at ci kaso bi door leen bàyyi. Mm. ñooñu Ousmane Sonko amul kenn ku fi justice téye nga dégg ñaari weer bàyyi nañ ko ñetti weer gàtt gàtt ñoom Falilou Keita wala son excellence Bassirou Diomaye Faye gàtt gàtt li manqué at bi bëriwul te wax ju tuuti lañ waxoon te loolu ñu waxoon li euh, Bah Diakhaté wax maanaam mën na taalum réew. c'est extrêmement boole ak li ñu wax ni fekk nañ ko ci téléphone am ci liñ ko yónnee ci ay koppar tudd ci ay kilifa. waaw mooy ay Abdoulaye Timbo. waaw loolu xam nga man samay wax day guddee rek dañuy sant yàlla di julli ci bi. Macky Sall ah, nee loolu naa la Macky Sall xolam xol bu naqari la jëlee réew pare Macky Sall guddi yi guddi yi maanaam li dal général Moussa Fall moo ko dal Macky Sall mi dina dem dina misère ba xëy dee te kenn du ko yóbbu kaso ndax lu metti lay dund lu méttee métti lay dund loo xam ne xam nga nit di nga dund ay méttit yoo xam ne sax dem kaso sax moo ko gën a sedd loolu mooy li dal. Macky Sall yow nga nekk président de la République nga def passation de service génne pale bi bi nga génnee pale bi sa askan taxaw ci buntu pale bi xam nga ay militants APR ñoo fa waroon taxaw président bu fi daan jóge dañuy taxaw tàccu la waxal la lu baax mais nga génne yow sa askan jeunes yi di la di la huer di la juuxoo ba nekkoo à l'aise ba yow bi ngay jël avion ay xel nga jëlee avion génn réew te Macky Sall juróom-ñaari xelam xalaatul muy ñëw fi même bu fekkee xelam mi ngi ci élection 2029 te li wér te wóor mooy. Macky Sall procédure bi wax naa la ne déclenché nañ ko. ci CPI ah, si bu Macky Sall balaa at ci kàttanu borom bi balaa at bii bu jeexee. Hmm. ba début euh, euh, nu mu ngi ci ban ñi ngi ci ban mois. kii début début année bi début deux mille vingt quatre. début deux mille vingt cinq Macky Sall dinañ ko lancer mandat d'arrêt international lancer ko mandat d'amener indi ko fii àtte ko déjà sax ñi ngi càmbaraat chambre criminelle yi nga xam ne. ñoom ñoo chambre extraordinaire africain yi nga xam ne ñoo àtte woon Hissène Habré parce que foog ñu préparer ko c'est un chef d'État dafa am anam bu ñu koy àttee anam bu ñu koy jàppee yooyu yëpp bu matee. Macky Sall dina ñëw fii ak nag ñaari généro yoo xam ne seen tour mi ngi nekk CPI ak juróom benn ministre u Macky Sall dont Antoine Félix Diome ñoom ñëpp seen tour mi ngi Juan Branco yóbbu na ko CPI te sénégalais yi dans les jours à venir dinañu ci am lu leen gën a leer ne ñu li ñuy wax forontewuñu ko maanaam cette affaire laa mënul rester impuni Macky Sall seey nii ci ngelaw li ñu négocier affaire yi affaire yi du mujje fen ñi dee perte ñu def comme si de rien ne l'était loolu c'est impossible Macky Sall mooy le premier responsable parce que les ordres s'exécutent sans hésitation ni murmure l'autorité qui le donne le dernier en est entièrement responsable te Macky Sall moo doon joxe ay instructions moom moo ko doon joxe dem nañ ba toll foo xam ne Ousmane Sonko biir prison su l'ombre d'aucun doute comme sama expression la am na ay famille ay jegeñaale laa la wax Ousmane Sonko yu mës a dem Cap Manuel di seeti ji Ousmane Sonko maa ngi koy wàcc ci Alxuraan li may wax kenn mënu ko dindi général Moussa Fall dafa ne ñooñu bu ñu duggee ci kaso bi musiba am. moo daan xool ñan ñooy dugg di seeti Ousmane Sonko ak ñan ñoo ko dul seeti li ma la wax kenn du ko xoola kenn du ko dindi li ma la wax nii maanaam dañu xoola dañu tegoon ay caméra de surveillance ci prison bi yóbbu ci prison bi ay agent infiltré yoo xam ne nii ay infraction yu ndaw lañu def ñu yóbbu leen prison Cap ñu toll woon ci ñetti agent yoo xam ne seen rôle moo doon lu ñu fa gis lu ñu fa dégg ci Bassirou Diomaye Faye ña leen di seet ñëpp ñu bindal rapport Macky Sall 24 heures sur 24 Macky Sall da doon jot ay rapport ci activités yu soo ko nekkee woon ci biir nekkee woon ci biir prison donc kon ndax li xew Sénégal lépp. ndax tey dafay rester impuni mënta nekk Macky Sall il faut que ñu juge que si chambre extraordinaire Afrique Hissène Habré du woon président. président Mauritanie du woon président fu ñu moom moo dem lijjanti bu ñu indi Hissène Habré atte ko Sénégal ba Hissène Habré deewee Sénégal moom Macky Sall moo def loolu kon kañ moom. moom mi def loolu ki fi toog président di Bassirou Diomaye Faye pour sénégalais yi kontaan ci moom. Hmm. pour mu xam ne lii moo taxoon sénégalais yi voteel ko ñi seen ñi seen doom dee xale yi dee ci mbëkk bi ñiñ fi rey ñiñ fi xoxatal ñoom Firbeet Sambou li taxoon nit ñi exilé wu Mali daw mooy maanaam pour rek ñu am dëgg c'est pas vengeance mais dëgg dafa neex pour rek ñu am dëgg ñu établir la vérité maanaam àtte Macky Sall ak ay généraux ak ministres yi ñi nga xam ne seen loxo takk na ci tooxi duuna ak rey yi amoon ci réew mi ba loolu leer nañ ci askanu Sénégal. te yow jàpp nga ni loo xam ne ni président euh, Bassirou Diomaye Diakhar Faye dina ci accéder te soo koy wax boobaa euh, ñi lay opposé na la mais yow yaa fi wax léegi rupture dafa am ci justice ñu doxee pourquoi rek nga tëb ne oui ah. il faut que Bassirou mu def loolu. alors que de l'autre côté jàpp ngeen ni séparation de pouvoirs bu amee mooy justice dañuy bàyyi moom ci boppam la war mu def ko. déedéet déedéet mën a lijjantee. ñaar waaw waaw non lii bokkul lii lii chambre africaine extraordinaire loolu ay kuréel ñoo si dugal seen lii bokkul ak suñuy juridiction bokkul mm. quoi du du du benn maanaam chef d'état ni ñu koy attee ni koy jàppe bokkul ak Ibrahima Sall booy booy jàpp loolu du Bassirou Diomaye fay moo koy sandaane ah. maanaam parce que le peuple sénégalais la justice est rendue au nom du peuple les textes ci kaw nit ñi la ñu koy appliquer nu n'est au-dessus de la loi. kon xanaa Macky Sall extraterrestre la xanaa Macky Sall jinne la xanaa Macky Sall dafa am ay pouvoir surnaturel xanaa kon Macky Sall moom dafa dafa am gàllaaj boo xam ne du dugg kaso wala kenn du ko àtte kon keñ kuñ fal président mais vous êtes libre de nga def lu la neex kenn du la topp kon keñ président day am benn humidité boo xam ne kon keñ jëlal ay fital rayal sa population dara loolu dafa yomb am na loo xam ne ça ressort du cadre de la logique. maanaam y a des faits qui sont là mën nañ ko toppi li ñuy wax crime économique mooy sàcc yi dix huit mille milliards ci presque plus de quarante mille milliards ci bi mu toogee deux mille douze ba deux mille vingt quatre par moitié budget bi ñoom dawal nañ ko parti Pastef door a jël pouvoir bi moitié budget bi dawal nañ ko ñu sàcc dix huit mille milliards rey cent deux xale ñu rey leen ñu dee nii ay gendarme disparaître nii kenn xamul seen néew fu mu fu mu nekk ay journalistes ñu dàq leen fa ñu doon liggéey. ay nit ñu leen di kat Yacine Fall demuñu këram bëgg ko rey Yacine Fall. ministre Yacine Fall ministre des affaires étrangères. Yacine Fall ministre des affaires étrangères. ay Samba boy ay Samba boy dem nañu ba këram bëgg jël bakkanam yàlla moo ko dun yàlla xam nga Yacine Fall dafa nekkoon une femme réservée boo xam ne euh, c'est une grande dame boo xam ne sax même booy xool nit ñi ràññewuñu ko nii. parce que c'est une dame c'est une grande dame calme ouverte nga xam ne si suuf la nekkoon di liggéey ci projet bi te ñu bëri xamuñu ko ñu bëri xamuñu ko mais maanaam si. ñi ëpp xam-xam doon liggéey projet bi Yacine Fall mënoo ko ci génn te bëggoon nañ ko fi rey bëccëgul rek am léegi bi ñuy rey bëgg rey Yacine Fall procureur bi jàpp Bah Diakhaté fan la nekkoon commissaire Adrame Sarr bi nekkoon division des investigations criminelles fan la nekkoon juge yi fi nekk di àtte tey fan la ñu nekkoon te pourtant loolu ñoom yëg nañ ko parce que porté na plainte mais plainte bi amul plainte bi amul amul suite lu doon ni jigéen nga fekk këram bëgg jël bakkanam mais ça c'est méchant ça mais lan la sénégalais yi def Macky Sall sénégalais yi dañu ji Macky Sall teranga dañ ko defal teranga lan la ñu def Macky Sall ba mérito Macky Sall respecté wuñu considéré wuñu toog naan ne si internet bi di kaj-kaj arrogant di napp nit ñi di waxee benn fitna boo xam ne yëkki alal jox ko ay nit ñu dem si sëriñ si di yàq deru Ousmane Sonko di ko waxal lu ñaaw moo tax waa APR am nañ un sérieux problème de un les défenseurs des droits de l'homme hmm. defal jàngat mooy défenseur des droits de l'homme yëpp kenn jëlagul position ci Macky Sall ak ay affaire déglu nga Alioune Tine nee na du ñu accepter benn chef d'état nekk bitim réew ci influence am muy bëgg a taal réew mi Macky Sall lay waxal parce que Macky Sall dafa nekk bitim réew ñoom ñoo xam luy terrorisme ñoom xam nañ terrorisme nag bu baax te bu ñu leen seetaanee terrorisme dugg ci réew mi bu ñu leen seetaanee ñu taal réew mi parce que ay bande lañ yoo xam ne li ñu yor ci alal kenn mënuloo wax nu mu toll te loolu lépp Macky Sall moo nekk à distance di ko manœuvrer mais bi nga xam ne moom la APR di am jamono ji hmm. mooy Macky Sall problème bi muy am mooy daf koy am ak le peuple moo tax si ñoom ñii déglu naa fii Goumbala bi nga ko invité Goumbala c'est ah. un <laughs> monsieur Goumbala c'est un très kooku bu ma sañoon Bassirou Diomaye fey am na ñoo xam ne bu ma sañoon da leen di xëcc ci wetam ay magum nguur lañ dañu xam état gumba la am na teraanga xam naa ko bu baax daan nañ daje place de l'obélisque ay manifestation nit ku yàgg am taxawaay bu dëgg xam naa ko parce que dañ fa daan daje ba mu jëloon numéro mais malheureusement mësuñu déggante téléphone ma naw ko nag ci ay position yàlla may na ko teraanga utatul alal mag la kooku xëcc ko tekk sa wet mu di la xelal di la jàppale ñooñ dañu am seen place si biir góor gi déglu naa ko nit kuy nangu dëgg la nee na ñoom leeroon na leen leer ne le Pastef fii laa ko seetaan ndax yow. mu ne moom leeroon na ko ne Pastef dafay gagné élection. réalité mais ñu jël loolu lépp ñu gas ko ñu suur ko ñu jox ko cër ci gouvernement par ndaw la mën na ànd ak ñoom maanaam te am na xam-xam maanaam am na personnalité même bu ma doon dajee ak Déthié Fall ci manifestation yi place de la nation même dangay xool bu ñëwee il est jeune mais même ses aînés day fa am respect bu ñu koy jox man dama mën a jàng doomu aadama il est calme il est dafa am charisme. dafa am personalité Déthié Fall mosoo ko dégg ci ay caaxaan. Hmm. kon ndaw la am na place ci biir gouvernement bi système du ay nit te loxoom set na kenn mosu ko dégg euh, ci ci luubal wala ci nii wala ci nale kon na ko son excellence woo li mu mérito ci gouvernement bi ñu jox ko ko bu mérito wee vice président pourquoi pas Déthié Fall mënul nekk vice président assemblée nationale wala président assemblée nationale pourquoi pas Mimi Touré mënul gérer assemblée euh, Mimi Touré. gannaaw justice rëcc nag Mimi Touré mooy profil idéal bi pour mu nekk présidente assemblée nationale loolu war na mën loolu war na mën nekk. Hmm. ñu bëri war nañu mën a dugg assemblée nationale ñoom Cheikh Bara Ndiaye ñeneen ak ñeneen man mii sax war naa dugg assemblée nationale te évidemment élection yi di ñëw. gisuma lu may teree dugg assemblée nationale loolu sama combat la parce que il faut que détenus yi am ku leen di représenter biir assemblée nationale biir assemblée ah. ci perspective yi ci perspective léegi APR fi ñuy amee problème mooy ñoom dañu demoon yàq deru usmaan sonk si sëriñ si d'abord ba Ousmane Sonko jaru fa dara te Ousmane Sonko amul woon avocat bu dem ci wetu sëriñ si setal fa deram maanaam bunte yëpp dafa tëju woon ci Ousmane sonk jëm si sëriñ si loolu mooy dëgg moom taxaw na Kër masaar mu ñaan sëriñ si ne leen samay kilifa ngeen jox naa leen orm bés bu ma faloo dinaa leen wan fi ma teg tarixa yi te wane na ko bi ñu gañee réew mi gis nañ ba Bassirou Diomaye Faye doxalin bu rafet bi nga xam ne daw na ko jëwam betti fenloo ci nguuru Macky dem bett kilifa diine yi doxal fa doxalin boo xam ne chef de l'état su ko def pour la première fois de l'histoire nga gis chef de l'état bu ñëw toobaa simmi ay simmi ay simmi ay simmi ay dàllam ñëw dox loolu vraiment wane na ormo bi mu jox waa kër Serigne Touba hmm. xam nga loolu Euh, président euh, Bassirou Diomaye Faye amu ko woon Touba amu ko woon Tivaouane par dañ dem yàq seen der Macky Sall dafa jox xaalis Madiambal Diagne ñu wër tërnir deru Ousmane Sonko ba jaratul dara hmm. mais xam nga léegi waa APR ban problème ban sérieux problème la ñuy am ak les religieux là hmm. léegi bés bu ñu déclenché poursuite yi léegi léegi appareil judiciaire bi commencé daw de jàpp yeeg yooyu waaw te du Ousmane Sonko mooy jàppe de seen i procureur ñoo fi ne ak seen i li nga xamante ne moo moom la rapport yi